gouvernement bi di def ñu boole ando ci sénégalais yëpp xooluñu ci ñi bokk ci tarixe gi wala ci tarixe gële xooluñu ci ñi bokk ci kuréel gi wala ñi bokk kuréel gele muy pouvoir muy opposition Sénégal lañ woote nañ ci jëmbat ay garab saxal ko ngir defar suñu réew xeyna na nag donte euh, xaw na xaw na gàtt ministère de l'environnement amna lu mot ci juroomi million ci pépinière ci ay garab yoo xam ne euh, seddale nañ ko te at yii di ñëw bu soobee yàlla bëgg nañoo dem ba li mat euh, fukki million ci ay pépinière ci biir Sénégal yépp kuréel yi mel ne Touba ci kanam nag ci sa ndigal dañ koy joxe exemple ci yeneen gox-goxaan yépp te dinañ ci gën a waxtaan ak ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales ci ñu fexe ba commune bu nekk ci ni ko Touba ci kanam defee fii lëkkaloog ci mairie Touba ci sa ndigal feneen tamit ñu fexe ba commune yépp am pépinière boo xam ne dina toll noonu wala mu ëpp ko waaye ñu fexe ba commune bu nekk ci buñ ca dem fekk na yow waajaloon nga bés bi ni ko waa Touba ci kanam waajale ndax day tax rek li ministère de l'environnement di def bu ko citoyen yëpp sénégalais yi feeloo ci loolu dinañ xam dinañ am lu ñu bëgg te joxoñ gi nga ci joxoñ digale ko njëriñ rek a ci nekk ndax ci njëriñ rek ngeen ciy woo kon ci cant gi lay sant euh, noonu la ñuy sante ñëpp ñi nga xamante ne wuyu nañu ci woote gi ak fépp fu ñu mën di nekk te lii ñu dooraat ndax mos na fi am ci weer wu ne sénégalais yëpp bokk jógandoo xam na réew mi ñoo ko bokk ni ci président de la république amee responsabilité ci liy defar noonu la citoyen bu ci nekk ci foo féete ak ci foo nekk noonu nga ci amee responsabilité pour defar te xam nañu ne ci loolu ngeen ni ñuy ñaax ñu leen gën a euh, yaakaar ci sénégalais yi gën leen déggal ndax woote moom yàgg ngeen ko def wane yoon bi yàgg ngeen ko def te xam naa ne sénégalais yi déggal nañu leen moo tax lu ngeen ñu ci gungee rek ñu leen di gën a tàllal loxo ngeen ngeen ñu gën ñu gungewaat loolu moo tax ba li li ñu sumb rek dinañ ñëw ci yéen kilifa diine yi gën leen ko leeralal ba ngeen xam fu ñu bëgg a dem ndax bu ko defee suñu kàddu néew na fu mu egg lool waaye yéen fu ngeen wootee ñu déglu leen xëy na dina fekk projet bu ñu tey nii sénégalais yi gën cee jàpp ndax njëriñ rek lañ ci am yaakaar ci réew mi kon sant nañ bu baax baax di wax na tamit euh, jublu nañu ci xew mu mag muy magal bi soobee yàlla dem rek premier ministre mu ngi woon sama kër ba daanaka minuit di waaji jot